Assalamu asalaamaaleykum guys tey na ñu ngi fi nga xamante ne ni ah, mooy Manjai si parc bi ah, nekk si li nga xamante ne ni nag ah, mooy programme Pinkido bi jàkkaarloo suma artiste yi nag ba xam naa ni laa ko njëkk a rek du ma def dara lu di ko mu introduce boppam bro naka. yo I'm feeling so great right now and so excited right now you know what I mean it's our brothers you know what I mean show Pinky Dope, Mbappe show you know what I mean and it's your boy Tam Fetty your brother. Utusuku, Mr. Mono. I'm actually feeling good right now. This show is already lit. Turn up. Shouts to Pinky. We there for you all day. Shouts, bruv. Okay, shout to Pinky out there, Bruno. My coaches. Man, get fine, fine. you know. Man, they call me Carafa. Some say Dof you know. Dof Burrell, Te banya fajo. Tebanya fajo. Yeah, man. Okay, but why Dof Burrell, yeah, I'm just somebody that loves to do things on my own and say it as I see it. I like to be my own person and just portray what is in me as it is without fear or any favor from nobody. Okay, so naka nga gisee programme bi tey. waaw alhamdulilah sant yàlla bu baax Pinky suñu rakala suñ la ku am yar la ku ni man tey bu ma dugg music su ma néeg la njëkk a ne ma bro dama bugg def music so su demee tey ba am bés bu I think I should be very glad and very happy that he is having a day like this and maa ngi ko ñaanal mu yokka ko bu baax dem dem def in a bigger place and in a better way inshallah he deserves more he really deserves it yeah man uh, gis naa ne Pinky uh, gars yi kontaan nañ torop ah lii dafa neex doon Gambien na. Ah, xewle sa moromi artistes yi ñëw uyu si la dafa neex torop daf bu réew bi te bañ a faju sa tur bi moom xam naa ne du ma ko fàtte <laughs> ok bro nakam eh, sant yàlla mu ngi fayeen man sis yeah man maa noo gisee programme bi Wow, turnout bi moom is great man I'm so impressed about it about the turnout xam nga because mom is just getting started. I'm really, really impressed about it, to be honest yeah man turnout bi mom is really great great man to be honest. so léegi uh, so sa tur bi ndax mën nga ñu back here. sure man know, ma yeah, Rupa Tapa aka the factual you know. come again. Rupa Tapa. Yeah, Rupa Tapa aka the factual. Yeah, Rupa is from my original name Ruben. Asad mm-hmm. boy change kana Rupa then Tapa man manko don't go to like the Tapa guys he race in a class or whatever the Tapa guy the Excel outdo you know what I'm saying. so comme noonu la fa taaba bi demee. so léegi tey jii soo doon ñax Pinky di ko wax ne mu góorgóorlu yokk fulaam ak faydaam ak jomam si lan koy gën a ñaaxee. comme si jobam moom nekk nii comme nu mu ko doon dooree nu mu struggle still bu mu stop bu gis ne léegi am naa lii muy xala bëgg a relax comme still nam just keep up the pace mu gën koo push harder mu dem to another level. loolu laa ko ñaan xam mu gën a train motivé boppam bu baax a baax a baax bu ko bi sonal bu ko dara sonal na mu focus lu mu nekk waaw mu dem la ci kanam si kaw la mu seen lii dafa ne dafa ne ah doon artiste xewle sa moromi artiste yi ñëw uyu si la macha allah neex na ah, waaye dégg nañ moom lu mu wax nee na ko ah, fu mu jógee ba mu tax mu fàtte fu mu jëm ah, ba tax na du ma def dara rek lu dul di gën a laajte suma bro bi bro dakam. maa ngi fayal sant yàlla yaa We Hussein laa tudd waaye Black Stone Stone Black mooy suma musical name bi yeah man which means like I'm like danga proud to sa black color bi ba nga tuddee sa Stone Black of course yeah hundred percent million percent million percent because I'm black ma black waaw yeah man suñ blague bi mooy loolu. du caaxaan macha allah xam naa ne ñu ñuy seetaan moom du ñu xàmmee ndax ñuulaay bi. waaw yu si fii yëpp lañ leen demal yu noo. ba ma sonn nu mu ko waxee rek. ok tey jii yaa ngi fi nga xamante ne nii mooy Mandiaye. waaw uh, Pinky xew la nga ñëw fii nii tey. Uh, mm-hmm. nan nga gisee programme bi. waaw yee non programme bi dama over kontaan si bu ma dugg si sax xam nga gis nit yi nii xam nga. ñu ñu nii di sóoloof spécial di Dippa Kunda London Corner Mandiaye Kunda xam nga gis naa lu bëri yu noo. loo xam ne daf ma over impress dama over kontaan eh, gis naa nit yu bëri maa ngi xam nga over bég si lii no know young artist yu bëri ñu ngi fi big artist yu bëri ñu ngi fi xam nga so ba pare Pinky dama kontaan si moom booy because tam daf ko deserve xam nga rek booy bu yàgga struggle la si music dafa yàgga like music man moom moom ñoo dëkka benn Dibakunda ñoo fa nekk you know su ma nduw la xam naa lu mu yàgga struggle daf ko deserve you know if I need put them, you know. nee ah, ko deserve parce que ñoom ñoo bokk ah, foofu nga xamante ne nii mooy Dipakunda xam naa ne nag comme nga xewle ah, say mbokka teew say xarit teew dafa ne rawatina nag nga nekk si li nga xamante ne nii mooy music industry sa xarit yi yëpp ñëw uyu si la rawatina ñëpp ñi nga xamante ne nii ñoom ñu ngi si aar bi di wëy waaye tey soo doon ñaaxaat Pinky di ko wax mu yokk góorgóorlam parce que ku nekk gis na fu mu jógee doon comme artiste dafa métti rawatina si dëkk bi nga xamante ne nii mooy Gambia parce que Euh, mun nañ na jàppale bi na waaye ji soo ko doon advice di ko wax mu yokk a góorgóorloom lan lay doon. waaw tey su ma ko doon advice pour wax ko mu góor góorgóorloom dafa ma déglu bu baax a baax because dafa xam ne man eldaam laa xam nga fu maa xen lu ma ko éenee rek mooy si kaw si kanam lu baax rek laa ko éenee noo know man sax mu raw ma man. Eh, mu raw ma dem si kaw yi noonu baax na mu ngi koo ñaanal moom it mu raw ko def ko disaas am nañ kontaante ak eh, xol bu ne macha allah di jàkkaarloo ak yow di la wax ne noonu la yow fi nga ko téye foofu la rek anyway thanks so very much apprécié ko anyway thank you